ma jox la nga dugal ko si chaîne bi yi mooy sil asil <laughs> ah, ni ni ngay dóoree ah. waaw affaire nu muy demee carrelage ah, da nga ko jàng sa karot tooy rek na sa karot tooy waaw karot bu baax mm-hmm. nga def sa sab bu baax waaw gaale ko bu baax waaw waaw teg sa barwatin bu dressage bi tàllee rek mm-hmm. mooy jeex na mooy jeex na fekkee ne mën nga sa liggéey nag mën nga mën nga jàng nga ko mm-hmm. waaw ko nag benn miir bi mën nga cee def quatre jours te du baax. miir bi ñaata fan nga siy def. wër bi yëpp léegi léegi laa ko commencé te incha allah balaa deux heures dinaa balaa deux heures di pare. ñu Jules en live en direct. दूंगा नियत पार्थी मुंह को कुमार से ओंज लिए मौके जब झील जब भी बोले नहीं नोटे जब भी ना रहेंगे इनको ये पार्टी भी मौके लेते हैं ना बाला डेज़ है तीनों चेयरमैन है yéen sa équipe ñaata personne la. bon tey trois personnes lañ. ah tey trois personnes lañ. ñaar ñooy liggéey keneen daf may préparer. pour suba. pour lii benn booy moom jàppale léegi léegi lii yëpp yaa koy àggale. incha allah keneen du ko laal. Hmm. lii nu mu tudd li ngay teg nii. waaw lii mooy carreau faïence mural. carreau faïence mural. mural la mural la boo ko takk sol sol mooy dem ci mhm. suuf. muraal bi taf ci mbir bi. ndax bëri na façon quoi façon la aussi façon bu rafet la. Mhm. waaw wax ban karo la ak fan la jógee quoi. Mhm. loolu publicité la. waaw mais karo bu baax la daal te rafet. waaw bu pare ba ñu wan image di ngeen xam dara. léegi dañu bëggoon xam xale yi bëgg métier nan ngay def waaw da ngay rek. waaw. bu aay nag wax ma comme sama genre bi moom. bu aay mhm. <laughs> mu def si à part. waaw boo approché maître carré boo mhm. xam na li muy def. Mhm. mën na liggéeyam. waaw mën na la jàppale. di ànd ak yow di la wan technique yi. bu la bàyyee bu la bàyyee rek ça veut dire que yow. peut mën nga sa liggéey wala. bu bàyyee mën nga dem quoi. liggéey bi lan la laaj tooy nekkee débutant lan la laaj qu'est-ce que qu'est-ce lan la njëkk a laaj. patience ak bañ a bëgg xaalis. patience ak bëgg bañ a bëgg xaalis. xaalis moom boo ko bëggee doo mën doo mën karala patience ak bañ a bëgg xaalis. surtout loolu. surtout loolu. boo bëggee xaalis moom doo mën métier moom. doo ko mën parce que. Mm-hmm. heure boo xëyee au lieu nga xool technique yaa ngi xalaat boo wàccee ñaata lañ la war a jox. Ah. kon ñii di wax dëkk bi amul liggéey loolu ànd nga si. dëkk bi. Mm-hmm. neexul ba neexul mais am na liggéey. am na liggéey. Ah. dëkk bi am na liggéey. xanaa kay liggéey bu la arrangé wul. Mm-hmm. moo fi am. waaw liggéey moom. Mm-hmm. macha allah ñi bëgg liggéey. Mm. dëgg yàlla ñi ngi liggéey am na nag ñoo xamante ne am nañ droit ne dëkk bi amul liggéey parce que dañoo yor seen i diplôme. te gisuñu fu ñu liggéey. Mm-hmm. ñooñu ñoo la ñuy wooye les chômeurs. parce que am nañ seen diplôme ba pare amuñu fu ñu liggéey. Mm-hmm. mais bu fekkee ne amoo diplôme amoo dara.